ci gën yaa rafeti fànqin yaa rabbi amin jërëjëf Sarr euh, jërëjëf Cheikh Baye xam naa waroon nga ànd ak nun ci euh, jataay bi waaye ni nga ko waxee coonoy tukki bi moo la gàllankoor macha allah waaye mel na ne yaa ngi ci jataay bi ndax jokkoo geeg teew gi daanaka gis jëmm ji rek moom moo koy wutale ma delluwaat ginnaaw tuuti rek ci laaj yi xam naa ci tënk lay doon ndax waxtu wi sori na mooy mm-hmm. maam alxaaji Mbàkke Tànjang su ma la ko doon laaj moom mooy kan lan nga may tontu nga tënkalee nu ko relation euh, kër maam Alxaaji Mbàkke Tànjang ak yeneen kër diine yi nekk ci réew mi dernière question bi incha allah boo daaneele ci yooyu ñu dikk ci bu ci yàlla àndee allah yubarik fiiku Cheikh Muxtaar ñi ngi tontu di wax ne Alaaji Mbàkke Tànjang radiallahu anhu mhm. nit la koo xam ne ci xadara bi nga xam tabaarakallahu ci lay dund muy xadara Cheikh Sidi Ahmed Tijaani radiallahu anhu ñoom ñëpp la amal relation yoo xam ne relation yu rafet la mhm. jiital ci waa kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick radiallahu anhu mhm. ndax bi muy laata jóge bi muy laata ñëw njaarim ma nga jóge dëkk bu ñuy wax kër alaaji mbakke ca kàkkun ca Tiwaawoon mhm. jóge fa ñëw sanc si njaarim ba mu fay jógee mu bàyyi fa maam Seydi Hadji Malick radiallahu anhu yàlla dogal ci relation bu rafet moom la amoon ci diine ak ci lislaam ak ci tariqa tijaan bi ñu bokk moom maam Mbàkke Tànjang mu nekkoon koo xam ne ci tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tijaani Mouhamadul Arabi ibnu Saïx ko tariqa bi ci Rabat ñu fa ñu xamee fa zaawiyam Mouhamadul Arabi Abdul Wahab jox ko tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tijaani jox ko muy muqaddam boo xam ne ci tariqa Cheikh Sidi Ahmad Tijaani ñaari muqaddam ñoo dox digganteem ak Cheikh Sidi Ahmad Tijaani yàlla dugal mu yor tariqa tijaaniya nekk ci Sénégal ku mu tuubal dugal la ci lislaam jox la tariqa tijaaniya ndax mission Maalaaji Mbàkke Tandiang nekkoon na lu ci jiitu mooy fexe ba nit ñi doon ay jullit ndax jamono bi mu doon dund jamono boobu lislaam dafa tumuranke woon ak ceddo li ñuy wax ak ceddo dafa ëppoon doole ci réew mi ceddo itam boo ko waxee ñu bëri dañuy jàpp ne ñoo xam ne du ñuy jullit waaye xaqiqatan am na ci ñoom ñoo xam ne jullit lañu woon waaye nag jullit bi daf leen a tàqaliwutoon ak dara lañ daan def ca démb te lislaam di ko tere mm-hmm. maalaaji Mbàkke yitteem bi njëkkoon mooy fexe ba julli di tasaaroo ci réew mi mm-hmm. moo tax gox bu ko yàlla dugal mu liggéey fa liggéey bu am solo ci lis ci lislaam bi ci fa am bu liggéey boobu tasaaroo day tànn jóge foofu dem ci beneen gox liggéey di fa lislaam mm-hmm. moo tax bi maam Seydi Xaaji Malik radiallahu anhu ñëwee ci waawoon taalibee maam alaaji Mbàkke Tànjang bu ñuy wax góor gi yëndi Malil Fall ci mbaaxam mag ñi wax nañ ne ñi ko toxal jëlee ko kàkkun indi ko njaareem ci la bokk mhm. am na beneen riwaaye bu wax ne góor gi alaaji Biraan Ndeela Seck moo góor gi Alsaan Tend Jaañ ñoom ñoo ko ñaanoon ak ngan indi ko wan ko waa bawal mhm. tabaarakallahu ba ko waa bawal gisee ma ngi ca kendal gam leen mayoon ñuy jógee bawal di dem di ko fekki fa mu nekk ca kàkkut di fa dugg ci lislaam ak di fa jël salaatul fatiha mhm. yàlla dogal bi mbooloo mi nag commencé bari nag ñu ñaan ko est ce que du mën a tuxoo ko ku ñëw dëkk ak ñoom bawal ndax ñu ko bëgg a gis bari na am na ñu mën a ñëw am na bunte ñoom mhm. te jamono jooju maam Seydi Xaaji Malick sanc na mi ñëw ñëw na Tiwaawoon yàlla dogal mu yor fa daari alquran ju mag di jàngale di fa yaatal lislaam bi ah ci istixaaram mu xam ne foofu mënatul génn ndax maam Sidi Xaaji Malick ma nga fa te làmp la boo xam ne bu mag ci lislaam ak tarixa tijaan yi fu mu nekk mënut a génn mu bàyyi fa maam Sidi Xaaji Malick moom maam Bakke Tandiang tànn ñëw bawal di fa di dugal nit ñi ci lislaam ak di leen jox salaatul fatiha ñu am relation yu rafet ñoom ñaar biñ fi bàyyi ko maam Serigne Babacar si radiyallahu anhu ak maam Alxaaji Ahmad Tandiang mi taawu Alaaji Mbàkke Tandiang sàmm kóllëre googu ak relation boobu ci gën daara ci gën jaarati ci sàmmiñ mm-hmm. bi ñu fa jógee sëriñ Abdul Aziz Al Amin rahmatullahi alayhi mm-hmm. yal na yàlla yeesal yërmandi ci kawam daa iman yeesalaat kullëri googu ak suñu wuy jur sëriñ aji Mouhamad Tandian mm-hmm. rahmatullahi alayhima bi yàlla dogalee itam ñoom ñu jóge fi itam sëriñ Omar mi fi nekk daa iman mi ngi jokkoo ak njabootuk sëriñ Abdul Aziz Al Amin jóge na fi itam kóllëre gi ma doxoon ci diggante mag ñi mu yeesalaat ko naka noonu itam ci tariqa muridiya boo waxee maam Serigne Touba radiallahu anhu maamam maam Maara Mbacke mooy maami maam Alaaji Mbacke Tànja ndax Alxaaji Mbacke Tànja nga radiallahu anhu soxna Yaasin Mbacke mi ko jur Ibrahima Awañang Mbacke mooy waajuram maam Maara Mbacke mooy waajuram ñu bokkee foofu ak maam Serigne Touba bokkee foofu ak maam Seydi Xaaji Malick ci mbokk waaye bokkee fa itam ak waa kër maam xaadima jaxate kala bokkee fa itam ak nit ñu baax ñëpp bi si fa ama daal loolu moo am man mii sama tur di bàyyi ñes li ko itam mooy kër alaaji mbàkke tàññang radiallahu anhu dañoo ubbi amul benn tariqa wala benn këru diine ci lislaam boo xam ne am lañ ci ak yow kullare li feeñ ak li nëbb noonu la sama maam alxaaj ahmad tànjang nekkoon taawu alaaji mbàkke tànjang wuutu ko gannaawam am lante woon ak Cheikh Ibrahim Niass ci kawlax ba yàlla dogal sama maam El Hadj Mouhamad Tandiang jël sama wajur Serigne Adji Mouhamad Tandiang jox ko Cheikh Ibrahim Niass mu yaral ko ko jàngalal ko ko bii sama baay jógee ci baay baay ñu boole sama baay ak ay doomam ñu commencé mu laana ci kër Cheikh Hajjul Mishri mu jógee fa ñibbi si Medina moom Serigne Adji Mouhamad Tandiang baay ñu boole waat ko ak ay doomam yóbbu leen Qaahira ñu jàngi. ah tabaarakallaahu mu nekk alaaka boo xam ne munzu qadiimi zaman lu yàgg ya loolu moo dox ba Gàmbi kër maam Maska sëñ Modou Ka mi taawu maam Maska maa laa jëm bakkitaan moo ko jàng alquran bu mokkal moo ko jox wird salaatul fatiha moo ko jox ijaasa kazalika naka noonu boo demee ci Kajoor alaaji Malick Wilane ci Medina Ndiol maa laa jëm bakkitaan foofu la jaar ak moom jox ko tariqa tijaani yi jox ko ijaasa ak ñeneen ak ñeneen kon booy wax ci maa laa jëm ci réew mi nit la koo xamante ne nii ci nit yàlla yi nit yàlla yëpp la jaxasoo ci bokk bokkuk deret waaye ñun ñëpp la jaxasoo ci lislam ak tarix macha allah mhm. euh, mu mel ne Cheikh bàyyi loolu tënk nga ko ci tënkin mu am solo laaj bi may daanalee rek euh, ñu bàyyi la nga dallu ñu wéyal li ci des mooy mhm. euh, maam alxaaji Mbacke Tànjang ak gàmm mhm. ñu gis ne ren waa kër maam alxaaji Mbacke Tànjang danañu amal gàmm ngi nañ ko daan amalee incha allah waaye mel ne contexte ren bi wuute naa contexte daaw bi. en tant mhm. que porte-parole euh, lan la kër gi jël ne ay matuwaay. ngir amal mhm. gàmmu gi ci jamonoy contexte bi nga xam ne moom la ñuy dund muy coronavirus bi. xaqiqatan mhm. Cheikh Muxtaar gàmm gi dañ ko amalee nañ ko daan amalee rek ci ci ndigalu sëriñ bi. noonu kese lañ koy amale noonu lañ koy amalee amul benn changement changement bi ci am mooy changement bi am ci àddina bi yëpp. muy mesure de barrière yi nga xam ni état Sénégal santaane na. ne képp koo xam ne mbooloo mi ngi lay uysi ñu ngi lay digal ci sa kaaraange yow mi ñuy uysi ak kaaraange njaboot gi lay uysi nga fexe sàmm di ñi te loolu itam day farati ci sëriñ bu ne bu na ma dajale ay njaboot ci sa kër nga fexe bañ bañ faa loroo ndax lislaam itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy màggal juddoom dafa wax mu ne dëgg-dëgg jullit mooy jullit boo xam ne du lor kenn waaye du nangu kenn ku ko lor mhm. kon mesure de barrière yi moom la sëriñ bi wax ne képp koo xam ne yaa ngi jóg ci Sénégal ak bitti Sénégal fas yéenee gàmmu si na nga fexe ba yooyu ñu wax ay masque moom tabaarakallaahu lu mu gàtt gàtt nga indaale ci benn boo ci mënee indaale ba boo gisee ko takkul nga jox ko ma takk itam mooy ndigalu sëriñ mhm. li ñuy wax ay xeeti gel yi ñuy laal ci loxo yitam ku ko mën a indaale nga indaale ko ba pare itam tabaarakallaahu sëriñ bi jël na ci ay matoo ak comité bi nga xam ne ñoo yor organisation gàmmu gi. suñu waajur Baye Ndiaga Diop nekk secrétaire ba Baye Ibrahim Ndiaye président ba ak Baye Pape Thiam mu maam maam Ibrahim Thiam ku ma nagge ñoom ñëpp jël nañ ay matukaay yoo xam ne ci organisation insha allahu taala mm. am nañu yaakaar bi idnillahi taala wa bi machiatihi ne jàmm ak salaam rek moom moo fay xew mm. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaye daal ñu sàmmonte ak àq yi nga xam ne mm. bépp jullit jamono ji war nga sàmmonte ak moom muy ci jamono mbas la ñu ne ah tubaarkàlla état Sénégal itam oyofal na ubbi na ay buntu képp koo xam ne am nga yéene gàmm terewula ko mhm. waaye lim lay accompagner dina ko digal itam mooy mesure de barrière yi mhm. nga fexe nit ñi respecté ko parce que devoiru état la itam fépp citoyen yi bi jëm état topp ko xool ndax fa muy jëm kaaraangeem ma nga fa wala kaaraangeem nekku fa mhm. tabarakallahu loolu itam sëriñ bi bàyyi na ci xel mi ngi koy bàyyiloo xel taalibe yi ak muqaddam yi nga xam ne ñoo aju kër gi te fas yéene gàmm si ànd ak kooloo macha allah ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di bàyyiloo xel hmm. mesure de barrière yi tabaarakallaahu hmm. uh, mi ngi leen koy bàyyiloo xel d'accord loolu daal moo ci yees am na solo lan ngay tàggatoo Cheikh Baye Maalaaji Mbàkke Tandiang ak gàmm nag hmm. Maalaaji Mbàkke mille huit cent quatre-vingt-dix-huit la njëkk a gàmm mille huit cent quatre-vingt-dix-huit def na téeméeri at ak ñaari at ci ren wala ñetti at fii ci njaareem gàmm gi mu njëkk a gàmm ci bawal laa wax de waxuma yu ko jiitu woon. Mhm. ndax lu jiitu loolu moom Mamalaaji Mbàkke mu jóg di gàmm. Mhm. di màggal juddu yonent bi. waaye ñun li ñu xam te am ko takk muy takk bu leer 1898 la ko commencé ci Jurbel. Mhm. danaan jël ñaari kaan. ci ay taalibeem ñoo xam ne moo ko rañ alquranul karim. ki commencé baqara jëm ci sóoratu kahfi kii commencé sóoratu mariam jëm si ci minal jinnati wan naas mag ñi nettali nañ ne buñ ci ñoom ñaar buñ daan jekkale day fekk fajar di xar ñu xat mu ñaanal taalibe yi ñaanal réew bi bu yeewuwaat njaboot gi ba déwéne mhm. noonu la Maalaaji Mbàkke daan gàmmu ci jamonoom mhm. ah tabaarakallaahu loolu itam ba tey jógu fa ndax ci guddi lu mu xat-xat sëriñ bi jël na ci njaboot bi ñoo xam ne ñoom lañu sant ñu yor alquraanul karim bi ci bisu gàmmu gi di ko jàng mhm. ah di ci waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne itam ah ñi ngi profitoo di wax état bu Sénégal ah pas-pas bi nga xam ne citoyen yi am nañ ko nañu dimbalee sàmm lañu ko ndax ah, fi mu ne jamono bi jaxasoo na te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na koo xam ne ku mérito rek àddina bi yëpp la parce que benn nit boo xam ne un milliard de personnes ñu ngi sa ginnaaw milliard et quelque benn nit boo ko tuddee kenn ku nekk yonent bi am na xool ci sa biir place ku mel noonu dëgg-dëgg képp kuy wax jëm ci moom te la ngay wax di ab safaan li état di wax trouble public yow yaa ngi koy indi fa nga koy waxee mhm. ñu ngi ñaan jullit ñi ñu ànd ak dal mhm. ci xew-xew bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. waaye ñu ngi koy naqarlu itam ndax yonent yàlla Muhammad waxoon na ne képp koo xam ne gis nga loo xam ne munkar la boo ko mënee dindi ak sa loxo nga dindi ko wala sa kàddu dindi ko bu fekkee ne yooyu yëpp mënoo ko nag li gën a li gën a doyee di mooy nga naqarlu ko ci sa biir xol ñun njabootu ak maam Alxaaji Mbàkke Tànjang yëpp ñu ngi ànd di naqarlu caricature yi ci caricature yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag wa zalik adaful iman mm-hmm. ndax duñu état mënuñoo xeex amuñuy ngànnaay amuñu armée te itam réew mi weesu na ñu jël ay ngànnaay jëm ci ay nit loolu kenn dootu ko def léegi mm-hmm. waaye ñi ngi ànd ñun njabootu ak maam Alxaaji Mbàkke Tànjang di naqarlu mm-hmm. ñi nga xam ne noonu la ñuy caricature yonent bi suñ kilifa yi ci war a wax itam nañ ca war a wax manqué loolu mooy sama kat gi nga xam ne moom lay tëjee. macha allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du morom. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu dutoon moom dara du am loolu fàttali la ku mel noonu nag dafa war ci état dëgg-dëgg bu mën a doon ah bu ko sa njaboot dee tudd nga leen ndax tudd yonent bi doyoo del ko wala wax ci leneen mën naa tukkal àdduna. Mhm. waxuma mën naa taal am réew waaye mën naa tukkal àdduna. Mhm. ñun njaboot yëpp ñu ngi ànd di naqarlu loolu nga xam ne mu ngi am. ñu di ko jël di ko teg ci dëru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi jéggalu kàddu yu Cheikh Muxtar macha allah di wax ne lépp lu ci dëng mhm. ñu xam ne matadik doomu aadama la lépp rafet na waaye suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la yor seen kàddu ñoom bu ñu jëloon kàddu gi wax ci dana gën a rafet mhm. te dana gën a mat te dana gën a sell macha allah ñu ngi jéggalu kàddu yi di ñaan DTV yàlla na yàlla gën a yëkkati gën ko jëme kanam amiin yaa rabbal alamin yow itam tabaarkalla sa liggéey ci télé bi ñu ngi koy rafetlu yàlla na yàlla doole laa sàmm te doole barket Maam Mbàkke Taañ nga waaleykum salaam wa rahmatulah.